Cheikh Fall maa ngi lay nuyu. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah. voilà Cheikh Fall nga nekk chargé de communication bu mouvement nitu Dëgg nag euh, fi ñu toll nii euh, gis nga njiitu réew mi tas na assemblée nationale bu Sénégal euh, si jamono bi nga xam ne dañ doon xaar premier ministre Ousmane Sonko def sa déclaration de politique générale naka nga gisee mbir mi. waaw di naxarlu rek di naxarlu ndax. Sénégal dafa nekk réew moo xamante ni bokk na si réew yi ñu doon ndamoo ndax démocratie euh, suñu gisee ni dañoo fal président boo xamante ni moom premier ministre moo ko ëpp doole ndax euh, président li mu waxoon lépp dara amu si waxoon na ni premier ministre dana def déclaration de politique générale euh, gis nañ ni loolu amul premier waxoon na ni déclaration bi du am waxoon na ni dinañ tas am assemblée bi waxoon na ni tam motion de censure du am loolu yëpp nag suñu gisee ni moom li mu waxoon yëpp am na ci dëkk bu mel ni démocratie dafa ñuy delloo rek ci Montesquieu li mu waxoon ne politiciens ñaari ambition la am nan lay def ba toog ci nguur ak su toogee ci nguur nan lay def ba yàgg fa dafa am loo xam ne nag politique politicienne la mooy jéem am mécanisme ci assemblée bi nga xamante ne su booba yow li la nekk ngay ngay ngay ngay ngay doxalee. te loolu du cohabitation du nekkul lu baax ci réew boo xam ne dafa am démocratie soo xoolee li xew France jamono yi passé gis nañ ni opposition bi ñoom ñoo gañ assemblée bi ñoom ba nii nii ñoom ñoo war a fal sax premier cohabitation loolu moo tax mu am njëriñ ci démocratie mais gis nañ ni dëkk-dëkk fi mu jëm hmm. euh, Cheikh euh, te li si gën a doy waar mooy euh, président Diomaye dafa waxoon ne DPG bi le treize lay am ba député yi daal di koy fekk si loolu le treize tey jii ñu waroon xaar DPG bi amul. waa kilifa kilifa dafa war a wattandiku di wax muy dañ di tas assemblée bi bi. waa kilifa dafa war a watandiku di wax muy dañ euh, dafay wane encore une fois que ni ñun Sénégal dëkk bi nga xamante ni moom lañ nekk di dund mooy premier ministre moom mooy def sa sa sa loi ndax du benn yoon du ñaari yoon président wax na moom mu wax leen da gis sax bu président di tukki pour dem si dëkk dëkk réew tugal yi lu mel ni France ci yomb ci moment yooyu lay jël ay mooy ay kàddu yu doy waar di ko sànni waa France nga xam ni Sénégal dafa mel ni ñaari ñaari njiit la am te président de la république premier ministre moo ko ëpp njëriñ ndax premier ministre bi waxoon na lii yëpp te li mu waxoon moom moo am président bi li mu waxoon dara amu si loolu daal li muy tegtale mooy sénégalais yi faluñu ki nga xamante ni moom moo ñu jiite mais keneen lañ fal koo xamante ni tey am na ko koy jiite te loolu baaxul ci réew ndax euh, nit moom crise d'autorité su amee ci réew rek dafay fagaagal démocratie te dina tax ba population bi dina ñeme ba lépp lu njiitu réew mi waxati. dootuñ ko mhm. euh, tey jii kon sénégalais war a dem ci urne yi ci 17 novembre 2024 euh, bu ñu sukkandikoo ba léegi ci njiitu réew mi est-ce que Sénégal pare nañ si jamono yi euh, pour ay élections parce que jafe-jafe yi bari na. waaw sénégalais yi nag réew mi a dem côté ji comme ni ñu demee woon si élections yi passé ndax. ñu si bëri li leen jaayoon ci wàllu rupture loolu yëpp gis nañ ni réalité bi ak lañ yaakaaroon amul motivation bi nga xamante ni surtout ndaw yi amoon nañ ko si dem di voté pour jëlee fi gouvernement bi fi nekkoon gëw ma ni motivation boobu dinañ ko amaat pour dem si élection législative yi ndax euh, li fi xew si diggante bi dafa dafa bëri mm-hmm. euh, euh, ñu bëri nekkoon moo taxoon ñu doon rey seen bopp pour mën a dem woote gi nga xam ne moo fi nekk comme que sanctionné na leen mm-hmm. gëw ma ni motivation bi nga xam ne amoon na fi dina fi amaat yaakaar naa daal ragal naa Euh, lu euh, ni ñu koy waxatee faible euh, participation bu mag dina am si élection yi di novembre yi. d'accord kon gis nga ni situation bi sénégalais yi di dund pare wuñ pour dem si urne yi daal. gaw ma ko gaw ma ko gaw ma ko boo xoolee. Hmm. ñaxtu yi nga xamante ne sénégalais yi ñu ngi koy ñax ak ñu si bëri ñoo xamante ne tey rëccu nañ sax li nga xam ne ñu ngi doon rayante seen biir ngir fal nguur gi boo déggee li sénégalais di wax da ngay xam ne daal. bu démb doon tey ñu si bëri lii ñu def nii duñ ko def waaye nag doyaloon si Macky Sall tey ak gouvernement moo waraloon tey ñu bëri amul motivation boobu léegi Macky Sall dem na gëw ma ni nit ñi wàllum législatif falum député dina leen jaral li nga xamante ne présidentiel jaral ndax gisuñ seen bopp si si assemblée bi sénégalais yu bëri gisuñ seen bopp si assemblée bi parce que ñoom seen da ngay fal député mu def moom parlementaire am. Euh, groupe parlementaire am moo ko intéressé luñ ko wax la wax luñ ko waxul waxu ko te loolu Sénégal yi dañoo bëri ci façon politique boobu. Mhm. Euh, ñoom dañu bëgg uti majorité à l' assemblée nationale maanaam dañu bëgg am majorité à l' assemblée su ko defee euh, ñu mën a jàllale seeni loi est ce que jàpp nga ni majorité boobu mën nañ ko am actuellement. waaw mën nañ ko am mais du yomb ndax buñ fàttalikoo. yeewi askan wi moom moo taxoon tey euh, ñu am ma ñu dem ba euh, li leen ëppee si député matul sax juróom loolu li leen ko mooy coalition bi ñu nekkoon muy yeewi askan wi te gis nañ ni coalition yeewi askan boobu ñu mel ni taxawu Sénégal ñoom génn nañ si ñu mel ni ñu bëri bëri ñu fokkoon si coalition bi te ànduñoo ak ñoom ñu mel ni PUR ak ñoom dañoo demaloon sa bopp si élection présidentielle ragaluma ragal naa ni majorité tam suñ ko su dee dinañ ko am du doon lu yomb si élection yi di ñëw. Mm-hmm. Euh, Cheikh beneen problème aussi fi ñu toll ni gis nga ndaw yi euh, ba léegi ñi ngi jël gaal yi pour dem ca ca Europe ñi siy faatu bari euh, tragédie bi mujjee am ma nga amee ca Mbuur nit yu bari ñàkk seen bakkan naka nga gisee phénomène bi ak déception bi nga xam ni jeunesse bi moom la am. waaw balaa dara rek di masawu suñu. waajur yi nga xamante ne ak ñoom yi nga xam ne ñoom ñoo ñàkk seen seen njaboot si si euh, gaal yi di di leen ñaanal yàlla xare leen àjjana di wax ni loolu lu daw yaram la lu triste la ndax euh, président gouvernement bi fi nekk ñoom waxoon nañ ne euh, bis li tax si jamono yi Macky Sall li tax ndaw yi doon dem si gaal gi di jël gaal gi mooy seen yaakaar bu tas ak ñàkk. vision politique bi nga xam ne nguur gi moom la amoon moo tax ñu ko def léegi ñoom ñoo fi nekk si ñoom la des ñoom ñoo war a pexe ut politique boo xamante dañu utal xale yi ndaw xale yi liggéey fii ci réew mi ba dootuñu soxlaati dem feneen ndax loolu lañ leen digoon digoon lañ leen ni buñ falo Sénégal di dëkk boo xamante ni Eldorado lay nekk lépp lu waaye doon uti si biti li ko am si biir léegi nag euh, trois mois quatre mois ba cinq mois teel na waaye cin bu naree neex su dafay xeeñ lu neex mais gis nañ ni cin bi moom li muy xeeñ neexul dara ndax euh, lañ digoon ak la ñuy jëfee dafa wuute lool lool lool désespoir boobu nag tey moo tax jeunesse bi di gën a jël gaal yi ngir mën a dem uti seen wërsëg si yeneen Mhm. Euh, Cheikh euh, ñu gis njiitu réew mi ngi wax pour xeex phénomène bi mi ngi wax ni sax faaw ñuy dénoncer dénonciation yoole maanaam képp koo gis ni yaa ngi euh, ñu yaa ngi préparer defar sa gaal di ut ay ñu ci dugal ñu dénoncer la naka gisee mbir moomu est-ce que jàpp nga ni lu pertinent la. loolu loolu du xalaat du xalaat ndax loolu bi seen la boo nekkee si banlieue bi wala nga dëkk si yu mel ni yu mel ni. fi euh, nga xamante nañ fay defee ay pes yooyu bi nga xamante ni ne dëgg-dëgg yoole nekkul nekkul solution ndax population bi mun nañ la mun nañ la andil ay jafe-jafe yoo xamante ni tey yow bu noo ko xam ba ndax li li ñuy waxee si si euh, expression mbedd script mooy koo xamante ni dafay boole soit ngay boole ay ñuy drogué wu wala ngay boole ñuy sàcc loolu ñooñu bu ñu la jàppee traître nañ la jàppee population bi te mun nañ la teg daan yoo xamante ni gi moom du ko fekkee bële kon loolu du système bu tax ñoom ñoo yor kaaraange géej gi ñoom ñooy nguur gi. ñoom ñoo yor gànnaay yi ak lépp loo xamante ne tey mun na protéger Sénégalais yi demee ba loolu ñu koy yaakaar si si si si nit ñi nga xam ne ñoom ñoo leen waroon samb mooy wane ni échec la si si si wàllu euh, nguur gi. Hmm. échec bu mag la sax. inflation maanaam fi ñu toll nii njëg yëpp daal di euh, yéeg ci jamono bi nga xam ni sax euh, nguur gi jëloon na ay matukaay pour yenn wàññi yenn denrées yi comme ceeb euh, diwlin ciment mburu naka nga gisee actuellement inflation bi nga xam ni sénégalais yi yëg nañ ko. waaw inflation bi moom loolu sénégalais ñoo bëgg parce que xam nga réalité de l' état bi Ousmane Sonko doon wax gëmu ko moom moo leen rattrapé. parce que tey boo nekkee si opposition am na yu bëri yoo xam ne doo am maîtrise waaye boo demee ba nekk njiit li ngay xam bu baax a baax lu nekk lan moo ko waral gis nañ ni liñ fi diggee woon lépp lépp lépp dara amu si mburu biñ ko bëggee wàññi rek gis nga coow li si nekk ak euh, association boulanger yooyu dund gi ceeb bi lu si bëri lañ koy jëlee te dafa am loo ay normes yoo xamante moom moo ñu boole si ak ak waa bitim réew loolu yëpp nag biñ demee ba gis ko xam nañ ni lañ bëggoon ak lañ doon dig sénégalais yi mënta yombee comme ni ñu ko doon waxee moo waral tey Sénégal dund gi métti gi nga xamante ni tey moom moo ñu dal. Mhm. Euh, kon tey jii ban politique de jeunesse ngay xaar si nguur gi euh, Cheikh Fall. ban politique waaw nguur gi moom li ko war rek wax dëgg yàlla moom mooy. Euh, mu jiital intérêt askan wi dañu wàññi politique bi ndax fi mu nekk nii politique moom jo jo ko dara ndax fal nañ leen buñ dañ leen fal Sénégal. Euh, jox xale yi liggéey aar sénégalais li leen war mooy euh, ñu fexe daal liggéey bi ñu teg ko ci yoon ku nekk ñu jox la li nga li nga yellool ndax mënuma gëm gouvernement boo xam ne dañuy jub jubal jubanti yi nga dem fal koo xamante ni tey ces institutions yu mag yoo xamante ni dañ ko incriminé bi dañ ko jàppoon te liñ ko jàppee woon du daal du lul lul affaire euh, fraude ak yu demee noonu nga ñëw fal ko jox ko yenn institution yow bu fekkee da nga ne da ngay jub jubal dina jaaxal Sénégal ndaw yi ñu ngi créé ay dee créé yëpp mais yooyu yëpp tey ce que ndaw yi am nañ si accès est ce que ndaw yi tey ñoom ñëpp tey ñi bëgg liggéey tey bu ñu demee jëlee leen yomb parce que dégg nañ ministre bi benn ministre si gouvernement bi mu wax ne moom su jotee ay CV CV bi njëkk a xool ndax mooy CV bi ndax waa Pastef nga wala du waa doo nekk waa Pastef te loolu lay digal naataangoom yëpp xam nga loolu nag bu ñu ko waxee ci réew mu toll ni Sénégal mooy yaakaaroo yàqeet kon tey dañu yaakaaroo jafe-jafe nga xam ne yaakaaroon nañ ñi suñu ñëwee nañ ko dindi si wàllu Euh, xëyu ndaw yi gëmuñ ni dina mën a nekk ak ak bi muy demee. voilà euh, dernière question Cheikh Fall ñu wax ci wàllum démocratie dimanche bi ci la ñuy màggal euh, démocratie ci àdduna bi naka nga gisee euh, nguur gu bees gi ci wàllum démocratie même bu fekkente ni sax juróom weer rek la fi toog noo koy noté par rapport ak régime mu Macky Sall. waaw démocratie Sénégal ñun ñëpp xam nañ dafa dellu ginnaaw depuis jamono Macky Sall soo xoolee sax mag i côté infrastructure def na si lu bëri waaye li tax ñu sanctionné ko mooy recul démocratique nga xam Sénégal bi ñu ko doon def di jàpp ay nit di leen ñoom la neexee xam nga di leen def lu nekk ku la arrangé wul nga tëj ko ku wax nga tëj ko nit ñi am droit manifester duñ def loolu bokkoon na si li nga xam ne tey moom la Sénégal njiit bi fi jógee léegi nag suñ gisee gouvernement bu bees nekk ci yoon woowu tey tëj nañ fi ay nit yu mel ni ay commissaire Keita ay Ahmed Suzanne Camara ñu bëri ay ba Diakhaté te liñ leen jàppee du dara dudul ah benn wax boo xam wax nañ ko ci rew mi lu jëm si premier ministre wala chef de kon gis nañ ni démocratie bi ni ñu ko yaakaare woon ba léegi des na te euh, démocratie Sénégal li xaw assemblée bi nii rek wax na ni démocratie Sénégal dafay dellu ginnaaw ndax cohabitation dafa baax si démocratie soo xoolee France dafa xew weesu jamono yu weesu mooy opposition bi ñoo ñoo gañ assemblée bi di waaj a installé premier ministre ndax loolu mooy tax dëkk bi ne soo jëlee mécanisme yi doole jéem nga jël ko benn parti parti boobu lu leen neex la ñuy def si réew mi te boobaa kenn du dara loolu dëgg-dëgg du rupture du démocratie de bon boobu tas yaakaar bu tas nguur bi nga xam ne moom moo fi nekk. Hmm. merci beaucoup Cheikh Fall ñu ngi lay euh, remercier bu baax a baax ci disponibilité bi. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf voilà de communication nga bu mouvement nitu dëgg jërëjëf.